gars yi fii mooy daral bi nga xam ne moo nekk ci biir géejawaay li doon am fi nga xamante ni mooy seeraas ñëpp di coow nee naa leen tey géejawaay tey ñoo ay dama bëgg a def concours nag damay dugg géejawaay dugg biir seeraas xool ba xam waa seeraas yi ponkali fa la nekk wala yu ponkali fii la nekk ci biir géejawaay ay kii mooy laay bari laay bari defe naa ne géejawaay ku xool xam ne daral bi nii bu fi amee tey gannaaw yàlla ak jëmu ji la koo xamante ni moo fi njëkk a samp daral bi ànd ci ak ay gaam di ci liggéey tey ba daral bi tey ji mel nii waa mais laay defe naa ni euh, daral bi gis nañ ni fees na par rapport ak bi ñuy doog ñëw laay instant yi nii nii nii nii xar yi ak coono yi nga da koy daj mais laay dégg naa ñu ne yaa dàq delloo gars yi ci ci dëkk bi mais mais à part ça dama lay bàyyi nga nuyoo. incha allah yi maa ngi bëgg ak lu ñëpp ñëpp ñëpp. kontaan nañ tamit xam nga ci teewaay bi benn instant bi mais mais laay am na benn xar boo xamante ne dama gis ni nga téye ko mu nekk sa xar bi xar bi xar bi moom mooy ban ba ban raasu xar. kii ab laadum la. daaw laa ko jënd ba muy mbote quatre cent mille. bi muy ndaw. ba muy mbote daaw waaw. daaw nga ko jënd ren mu toll nii. Ah, liggéey rek. yow xar yow xar yi yow lan lay dundee. li xar dundee rek. non loolu moo mënul nekk. non li xar dundee rek la. un an un an xar mi nekk mbote ci un an mu toll. lépp rek loo xamante ne nit ki am ko ci amour. gëm ko. génn ci par force amul leneen. saa ne xañal sa bopp jox leen xool ñoom ñu fay la léegi. nga ni xañal sa bopp jox leen ñoom ñu fay la. mais xar bi instant yii nii instant yii yaa ngi ko jëndee woon 400000 bi bi mu nekk mbote mais xar bi guddi gi ñu toll nii nii nii nii ñaata lay laaj instant yii nii ci biir. ah non lu muy ko wax gars yi waaye dégg naa fi dégg naa fi brique ak lu teg de. waaw ah, lépp mën naa ne en tout daal génn na fu mu toll nii. <laughs> génn na waaw kii génn na. instant yii nii joxe nga ko ba pare. waaw kii joxe na nga ko ba pare. ba mu toll nii léegi instant yii joxe nga ko. waaw fu mu nii borom la ñuy xaar rek mu ñëw yóbbu alalam. mais instant yii nii guddi gi mu nii géejawaay fi mu nekk nii nii nii ñu ngi ñëw carrément ci. non instant bii wax dëgg gars ñu ngi ñëw di cooytu comme dab ni ñuy def. Mhm. ñëw dugg xool peese gars yi jéem a natt prix yi mhm. mais ñun comprendre nañ leen xam nañ heure jënd bi mhm. des na tuuti fu mu toll nii virement dugg na waaye gars yi jotaguñ seen xaalis. dañuy ñëw pour windeelu rek cooytu daral bi xool mais tôt ou tard dinañ ñëw parce que xam nañ daralu géejawaay bi te min nañ ko xam nañ ne daral bi gars yi nekkuñu fi ci teg nit ñu lu metti parce que situation yi moo tar. lu waay am boo ñëwee bu soobee yàlla di nga am xar ci kàttanu yàlla. mais mais instant yii nii nii nii xar seerul. non ku ci nekk ak li ne sa poos. boo déggee ñenn nan la xar dafa cher. da xool tey sama genre ma yor benn cent cinquante mil nit ki yor xar trois cent mille am nga ñëw ne ko xar bi laa bëgg du la jaay. dëgg boo génnee ne xar dafa cher. xam nga li nekk sa poos xam nga xar bi nga méngool dama ci xar boobu mu jaay la ko nga ñibbi am de. dëgg naa dëgg de. waaw looloo fi na. dëgg naa dëgg de xar mus na cher. mais instant yii nii nii nii yow am nga yaakaar ne xar ren du manqué. non kooku moom wax dëgg man chaque année dama koy wax. du ma ne xar day am walla du am. parce que mën nga dog ba dernier moment xar tuuru sa kanam. mais grand malaise waa ñu ngi delloo ziar bu baax sama waa ji. naka jàmm ji. sant alhamdulillah mais kontaan naa ci yow de. fii la ëppee. <laughs> fii la ëppee ñu ngi mais tey jii euh, defe naa ni ñu ngi ci biir daral bi. tey ji ku xool xam ne tey ji bu la neexoon tey ji boo ñëwee nga naka dem toogi sa kër. wut say booy teg leen fi xam nga booy nekk ci ngay jaay pétrole wala ngay def leneen waaye ñu gis ni digg dëgg dëgg dëgg dëgg Baay Faal nga. parce que tey ji bari na ñoo xam ne tey ji bu jógee Europe wala ñu jógee feneen dañuy am complexe di def yenn yi yow tey ji ñu gis ni yow tey ji jógee nga Europe ñëw nga waaye teewul tam yaa ngi nekk ak ñun nekk ak ñun tam ci biir daral yi di jàppale gars yi initiative bi ak xalaat bi tey ji yow maanaam tey ji li mel ni tey ji naka ngay toog tey ji di ko xalaat bon avant tout d'abord maa ngi nuyu sama gars yi yëpp di nuyu waa koñ bi di la nuyu surtout yow xam nga yow aussi mënoon nga romb fii gars yëpp xam nga mooy loolu ñun lii luñ si gën a dugal mooy maanaam booy affaire bi nekkul que rek da ngay toog di critiquer dëkk bi neexul dëkk bi neexul comme nu nga ko waxee rek. wallaay amuñu dara mais mun nañu ñëw fii ba ñibbi fekk duñu duñu duñu def dara mais tuuti bu ñu yor mun nañ si lekk di si naan pay dara lii yëpp pour booy xam ne dëkk bi war nga mun a concentré wu si benn affaire te doo doo risque sa laay si benn affaire tey ji maanaam loo nekk rek te góor góorlu si amaana yàlla suñu borom bi fekk si la si man nag xam naa ne du xaalis moo ma si dugal man amour bi moo ma si dugal sama digganteeg xar yi beneen affaire la. ñu koy xam nañ ne amour la <laughs> xam nga am soxna ñëw fi vacances. di di di ñëw fii di tëdd une di du di yeewu six di du matin ñëwaat fii nii. wallaahi kooku du pour xaalis. xam nga man bëgg-bëgg moo ma si dugal ak bëgg booy tamit ëllëg ak jàmm ñoom aussi ñu xam ne. affaire bi du toog di keexaar rek du ko espérer di waxee exactement loo nekk kii si rek yàlla suñu borom bi fekk si la si quoi. ñu gis ne xar yaa ngi ci ginnaaw defe naa ne ren boo xoolee prix bi taxut a tàng yenn tàng yi parce que yéen a ngi sóoraale tamit néew di doole yi nga xamante ni amuñu parce que heure bu ñu fi ñëwee mën a am loo xamante ni mën nañ cee sutura wu yóbbu ko seen kër. tabaski ren bi yow xalaat nga ne xar ren mën na bañ a manqué. bon bon pour l'instant moom man lii ma gisagum nii d'ailleurs fii nii. amoon na ay temps trois personnes ñoo fi nekk di jaay su ma fàttali ko ay 2017 ñun rek ñoo fi nekkoon di dóor mais dafa jékki-jékki dem ba si kanam ma xool ay cinq ans ngi nii léegi dóoruma fii mais dama ñëw gis fii ba hôpital ba Roi ba doyee yëpp ay xar la amaana mu bañ a dëgër man moom bagage si tegu duma ma si teengal buum bi damay yomba rek lii yëpp façon jaamu yàlla parce que jaamu yàlla du dem si jàkk ji di julli rek parce que soo gisee man ma taamu indaale ay xar yu ndaw yi di nga gis ku nga xamante ni maanaam mënul sax génn bëccëg jënd xar bu ndaw il préfère mu xaar ba guddi ñëw jënd xar bu ndaw pour njabootam bañ a dem xaaraani fenn wallaahi azim dama si profité pour jaamuwaale si yàlla quoi xam loolu la quoi. <laughs> sama yaram dafa daw parce que boo déggee li mu wax rek dafa xaw a doy waar am na ñoo xamante ni euh, amuñu waaye dañuy ragal a jënd xar bu ndaw di ko génnee bëccëg nit ñi di leen ree mais maanaam moom ci sutura lay waxee. lii mu lay wan ne doomu aadama fépp foo nekk dal demeek sa xel parce que demeek sa xel mooy tax nga mën a teg noonu en tant que yéen ñi nga xam ne tey yéen a nekk grand fille yan conseil yi ngeen di conseillé booy yi nga xamante ne tey bu ngeen fi nekkatul fi nekk ñoom ñoo fi war a nekk tey ngir fas aw ci yoon bi ngeen nekk nii waaw jaarale ko yoon rek avant jaarale bagage yi yoon dawal si yërmande xam nga doomu aadama moom lépp loo jiital yërmande surtout jëm si commerce xam jullit moom suñ la waxul dara sax kon ko suñ sang bu tedd bi nee la commerce si la léppam baaxee waaw doo xëy rek maanaam ji garab gi tey mu ñor tey nga lekk tey da nga siy dàqante tuuti tuuti ba yàlla wala yoon bi. mais kontaan nañ ci yow parce que àdduna nii la quoi tey ji yan kàddu yoo xamante ne tey ji à part lii comme tey ji délégué yi nga ne dañ fee nekk ay monsieur le maire député yi nga ne tey ji dañoo dëkk tey ji ci biir géejawaay war a génn tey ngir fas yéene jàppale tey ñi nga ne tey ji ay néew doole lañ ñooñu tey ji lan nga leen di lancé en tant que euh, monsieur le maire wala ministre boo xamante da lay leen tey bii géejawaay nga dëkk yan kàddu nga koy tëjee quoi par rapport ak yeneen gars yi. waaw ñu def luy priorité bi rek priorité bi mooy maanaam amaana tey man am naa lu ma jëndee xar mais am na ku nga xamante ne amul mënul jënd man tey jii su ma amul lu muy jëndee xar sax du ma métti mais man sama doom bi nekk kër ga laay xalaat diggante ak moromam yi monsieur le tey jii na def luy priorité bi maanaam. lu gën a nekk priorité mooy maanaam ñi néew di doole nga dox ndànk seen biir kër yi def te yàlla tax kenn bañ la yëg ba sans politique sans dara. parce que doomu aadama moom bu ngay dund nga mun a def lu baax si nga mun a jëriñ doomu aadama soo deewee yàlla dootu la may benn opportunité pour nga jóg defaat lu baax si bu ngay dund rek nga ko mun a def soo deewee jeex na. <laughs>